Euh, avec beaucoup de déception Mamadou Awa parce que tey mun nañu wax ne euh, la démocratie sénégalaise euh, a été balafrée et durablement li jot a am nii mun nañu wax bi Sénégal indépendant ba léegi amut mhm. Senghor ñëw na fi ba dem peut-être lenn la ñu reproché woon sengor mooy ni mu defee le transfert du pouvoir à travers l'article 35 mhm. mais euh, il fait partie des chefs d'État à l'époque yoo xam ne ils sont partis très tôt euh, donc mu nekk lu ñu rafetlu woon en Afrique mm -hmm. Diouf a toujours organisé les l'élection présidentielle à date euh, même si amoon na ay dialogue à l'époque amoon code consensuel Kéba mbay mhm. ba acteur politique yëpp d'accord ci naka la ñuy demee élection ak le président Abdoulaye Wade il y a eu des tentatives aussi de faire régresser la démocratie avec le 23 juin euh, cette loi bi mu bëggoon imposer euh, le ticket et aussi le quart bloquant. Mhm. Euh, donc euh, sénégalais yi jóg taxaw mu reculer. et euh, mais xamoon na ne élection yi bu ci demee. li taxoon mu doon jéem a def car camp bi aussi c' était ça. Hmm. xamoon na ne bu demee élection deuxième tour c' était indispensable. waaye teewul président Abdoulaye Wade dem na élection euh, puusul élection yi ne hmm. bàyyil ma defaruwaat. Hmm. donc président Macky Sall dem nañu ba élection yi des ñett semaine mu xam ne ki mu tànn euh, élection bi demagul candidat am décollé wul moom ci boppam dans son propre camp voix yu bëri jóg. ne kan euh, seen campagne ni mu demee doxagul euh, mu am des candidatures sérieuses yu mu jaakaar lool mu xam ne bu demee ci noonu élection ñoom dañuy perd nguur bi mhm. loolu mooy le vrai justificatif li tax mu ñëw ba trois semaines de l' mu dellu ginnaaw mu ne day dax élection yi mais loolu